salaamaaleykum man la Pape Fall président Nijaay gox ginnaaw raay noonu euh, boo gisee ma jël kaddu si lii nag bëgg a lijjanti pour luy aar feebar bi nga xam ne moom la ñuy wax Covid 19. mooy dama bëggoon ñëpp ñoo xam ne Sénégal la ñuy def particulièrement ginnaaw raay noonu ñu jël seen disposition di raxasu saa bu ñu génnee ak saa yi bu ñu ñëwee pour affaire coronavirus bi war leen a daw loolu moo taxoon ma ne booy raxasu nag ñii ñooy tàmm ngay Sayer Soro ba mu toog réserve jàpp bi wala saabu bi jàpp ba mu si loxo ci gannaaw ak ci biir ba mu set ba mu lay ba mu yëngu loxo bi ba mu set ba mu xaral maanaam bi ba mu set ba mu lépp soo ko xam ne que sa loxo set dana la ko gën a ñëw ba mu sa loxo ba lépp xam ne que ci boppam jóge na ci sa loxo. ba dégg dara gisatoo may wax nii nag pour ma aar jéem a askan wi aar seen bopp li ko dalee ci xale ba ci mag góor ak jigéen kenn ku nekk taxaw ci Sénégal ba mu daj lii yomb na kër bu nekk war na ko mun a am ñu defal ko askan wi defal ko suñu bopp surtout ginnaaw raay noor bi nga xam ne maire bi dafa jël disposition yëpp muy Papa Ndiame Dieng def ko à la disposition de la population muy lu ñuy raxasoo bag yi ñuy raxasoo eau de bi ak saabu bi kër gu nekk wala kër yu bari ci ginnaaw ak ñu def ko fa pour que askan yi mën a def nii ma def kenn ku nekk aar boppam aar njabootam feebar bi gaaw a génn ci sunum réew ñu koy ñaan yàlla na xam yàlla gaaw jële ci kàttanam ak mbaaxam